ku wéru du liggéey mm-hmm. ba am lu bi jox njabootam ku wéru du jaamu yàlla nit ki boo ko dimbalee ba mu wér di jaamu yàlla mm-hmm. defe naa di ci am tuyaaba asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñuy suivre seen seen sama xalaat ñu leen di nuyu di leen ziar di leen fàtte yéen ngi seen programme fagaru programme fagaru nag comme ni ngeen ko xamee chaque semaine dañuy am benn euh, feebar buy sonnal nit ñi ñu ñëw waxtaane ko ak professeur Ousmane Ndiaye muy borom Boga Bio nekk euh, di faj-faj boo xam ni faj bu bu ñuy sukkandiku gàncax la nekk fële ci diwaanu Kër Massar am naa ñi nga xam ne soxla nañ ko numéro moo nekk ci suufu vidéo bi noonu euh, bu ngeen seetaanee bu fàttali ko vidéo bi passé nag euh, ñi ngi ñëwoon ci li nga xamante ne mooy règle douloureuse jigéen ñi gis règle bu ñu gis règle di am ay jafe-jafe hmm. professeur leeraloon na jafe yi ci am ak euh, conséquences yi ak li nga xamante ni moom moo koy waral yépp leeraloon na ko deuxième partie tey nag day ñëw ci solution yi maanaam ñi nga xam ni bëgguñu bu ñuy am règle dem ay jafe-jafe lan lañ war a comporté woo ak lan lañ war di jël wala yi demee noonu ak ñi nga xam nag ñi ngi ci maanaam ñi ngi gis règle mais dañu am ay jafe-jafe ndax am na ay saafara yoo xam ni am na ci professeur kon ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw ñu ngi lay ziar sëñ Pape di ziar mbokk internet yëpp yi nga xamante ne ñu ngi suivre di leen baaluwaat ak bu baax a baax hmm. euh, ni nga ko waxee ci dysménorrhée noonu la mooy comme premier vidéo bi waxee hmm. woon nañ causes yi ak symptômes yi hmm. donc bii dañuy def ci prévention yi ak solution naturelle yi euh, liñ ci xam euh, bokk na ci Pape ci prévention yi mooy comme ni ñu waxee woon rek mhm. sànq comme que wax nañ ni ci biir causes yi mhm. mën na am ñoo xam ne infection moo leen koy jox mhm. donc xëy na ñu fexe ba infection yooyu nit ki di ko moytu maanaam di am di am euh, di def ay bien vaginal yu maanaam di di di seen nuñ ko mën a waxee infection leeral mooy ñi nga xamante ni seen awra day desee set day desee set waaw ay doomu jàngoro yi ci nekk ci nekk ba am di leen indi lay jafe-jafe jafe-jafe d' accord waaw léegi nag léegi bu ko nag euh, boobu léegi set googu. Mhm. ñu taxaw ci daal maanaam. ba nga xamante mhm, mhm. am solo la awra yi day set bu baax a baax. bokk na ci bokk na ci aussi e, maanaam di xam nga parfois dina am ñoo xam ne mooy li ñuy wax sànq. Euh, da leen di dal te xamuñu cause bi nga xamante ni dañuy nekk jànq rek nii. avant ñuy am jëkkër règle douloureuse yàpp leen. te xëy na amuñu benn formation benn mal formation mhm. ci wàllu utérus beeg ovaire yeeg yu demee noonu trompe mhm. yeeg yooyu amul benn difficulté mhm. mais ñoom dañoo jëkk ba caag rek am des trompes bouchées da am des kii règles douloureuses te xamuñu lan la donc mais li ci ëpp solo mooy prévention yi su fekkee ñi nga xamante ni da leen di dal lu ci bëri mooy ñuy noppalu def repos noppalu bu baax ci des mooy ñuy nelaw bu nelaw bu doy mhm. ak surtout pendant les règles bu fekkee règles yi ñëw na mhm. euh, su fekkee tamit nit ki day am ndax euh, koy daal parfois waaw expliqué woon ñu mun na bu fekkee day am règle douloureuse mhm. ba xam na ko bale balay bi ñëw su mënee di naan kafe kafe comme genre café Touba muy naan kafe euh, un jour avant règle bi di ñëw luy demee noonu xëy na mën na am du ko du ko sonal bu baax d'accord donc di naan café su fekkee tamit koo xam ne dafa am Euh, règle yi day bari. Mm-hmm. maanaam day dafay bari suy ñëw. Mm-hmm. day bari tamit ci hygiène boobu ñu waxoon. Mm-hmm. mu koy changé muy changé kiyam bi. maanaam ser ser kii. serviette euh, bi kii muy utilisé. coton yi muy utilisé coton yi muy utilisé. mu koy changé régulièrement mu koy changé bañ yàgg ak moom muy bañ a yàgg. changé mooy règle abondante waaw léegi su fekkee nag règle yi dafa bëri. mu koy changé lu bari aussi bañ koy bàyyi. lu yàgg doo koy changé. bañ a xëy def benn coton. waaw kay bëgg a toog ak moom ba jant bi sax. ba parce que c'est recommandé. au moins loolu c'est très waaw kay am na yoo xam ne dañuy kii dañuy jël benn rek bàyyi ko noonu ba tëdd doo koy changé. bañ bañ a sakkanal daal. waaw a sakkanal wér gu yaram ko defee nag au minimum war na ko changé. Mhm. six fois cinq ba six fois. Mhm. ci journée bi. Mhm. bu fekkee règle yi dafa bëri. bu fekkee tamit tamit sëy am na jëkkër. ku am jëkkër la. Mhm. bo xam nga sëy muy wàññi sëy bu sëy bu bari noonu noonu. d'accord maanaam xam nga nag ci ci charia moom. Mhm. jigéen bu gisee rek warul sëy. Ah, waaw waaw. jigéen bu gisee ngànt. daa sax nag. dafa araam waaw <laughs> mais nag am na ñoo xam ne xamuñu loolu aussi. Ah. am ñoo xam ne <laughs> bu seen. waaw nit ñi de moom façon yëpp ci nekk. waaw <laughs> bul xam. daa araam dafa araam. Mhm. ba pare day indi feebar. ci ku góor ki day indi feebar ci ku jigéen ki. day indi feebar ci doom ji mën na am doom bi mhm. parce que tey bu fekkente ni da ngay sëy ak sa soxna fekk setul mhm. ngeen am ci doom exemple mhm. parce que man yi mooy génn foofu du du du période fécondation waaw mais parfois yu am na yoo xamante ne xam nga toute règle est exceptionnelle waaw donc yooyu parfois bu fekkee rëcc rëcc mën na am ba fécondation am ça veut dire léegi xam naa nag ñu bëri nag dinañ contesté fii parce que dañu ne diggante boobu. du waaw règle di am fécondation am. lu mën a nekk waaw mais dafa am ay yoo xamante ni. Mhm. tout règle yëpp amuñu. Mhm. laa waxee. maanaam ay mhm. na ñoo xamante ne ay cinquante ans dañuy am doom. waaw te tey quarante cinq laa waxee. Ah, heure boobu mais période boobu du période de fécondation. dëgg la mais nag nga seeg sa soxna. moo tax charia di ko tey bu fekkente ni tey yàlla def na ci doom soosu fa exemple. Mm-hmm. Euh, kooku mën na nekk koo xamante ne bu bu bu juddoo. Mm-hmm. du wér. Mm-hmm. wala mu du am xel. wala mu am problème daal. day am ay jafe-jafe mën na am jafe-jafe. du normal du normal. te période boobu tamit ku ci sëy mën nga am ay problème ay feebar mën na la bari. moo tax képp koo xamante ni. sa jabar dafa jigéen bu seetul daal kenn du sëy ak moom maanaam bu nekkee période rek. kenn seeg moom loolu moom nit ñi dañ ko war a xam dañ ko war a xam waaw leeral la rek xay na sax am na ñu ko ñëpp am ñu bari moom xam nañ ko mais am na ñoo xam ne tamit xamuñu ko parce que dëkk bi moom du nekk am na fi ah, <laughs> waaw mu ngi noonu donc bu ko defee mooy genre yooyu ñu nañuy wàññi lu ñuy sëy tuuti léegi nag ci ñi nga xamante ne ay jànq lañ mm-hmm. amaguñu jëkkër en général mm-hmm. ñu bëri wax na ne bu ñu amee jëkkër moom mm-hmm. mën na mën na arrêté arrêté am na ñoo xam ne mën a arrêté am xam ne mën a wàññeeku am na ñoo xam ne tamit day continuer toujours. waaw ah, yi la gën a yeb nag. yi la gën a yeb waaw pour cent bu ñu yàggee sëy rek. waaw ah. parfois moom mën na mën na dañ ko wax. Mm-hmm. donc loolu aussi day day am am na ñoo xam ne bu ñu sëyee rek man da nga dégg sax nit ñi di la ko wax. man mm-hmm. boo amee boo sëyee. mu mm-hmm. arrêté moo moo moo arrêté. léegi nag bu fekkente ni nag nit ki am na ko ba pare léegi nag yan gàncax la war di utiliser. donc xam naa ni moom mën nañ ci joxe garab yu bëri. parce que mhm. garab yi ñu wax fii ci émission yi. Mhm. yu bëri daal nañu wax de problème règle douloureuse. waaw donc lu ci mel ni jus de citron. Mhm. jus de citron. nga def ko jus di ko naan. avant les bu fekkee avant règle bi di ñëw nga am jus de citron di ko naan. man na ko atténuer mën na ko wàññi bu baax a baax. ndoxu limam ndoxu waaw. nga def ko jus. <coughs> di ko naan avant règle yi di ñëw. bu yàggee mën na ko mën na ko wàññi. lu mel ni ndoxu jinjeer jus de gingembre mhm. jinjeer mhm. moom it nga am ko di ko naan lu ci bëri mën na def euh, règle yi si ñëw du mhm. metti wala nam doon méttee mën na ko bañ a méttee am na lu ñuy wax euh, wen garabu wen amee xas bi xasu wen moom di ko baxal en général di ko naan waaw tamit yàlla mën na la saafara ba xasu ba kii boobu règle douloureuse yooyu dina dina dañ wala soo koy gis dootul metti am na lu ñuy wax farxañ farxañ waaw reenu farxañ mhm. def naa ci lañ defoon émission fan yi waaw defoon nañ ci waaw farxañ moom it boo amee reen bi mhm. euh, baxal ko di ko mhm. naan yàlla mën na la dimbali ba feebar boobu loolu dina dina deñ wala moo dootul la sonal bu baax donc am na lu ñuy wax tamit nduur defoon nañ ci émission moom it boo ko amee xob yi baax na ci règle douloureuse reenu déemu bukki déemu bukki déemu bukki dafa guñ ci émission defe naa waaw déemu bukki bu amee si déem rek def si bii nag mooy siddeem sauvage maanaam siddeemu bukki mhm. moom dafa weex moom bokkut ak siddeem bee mais ñoo nuroo nag benn lañ mënoo leen a xàmme mhm, mhm, <laughs> waaye boo ko ñamee weex xatt la def moom tamit moom boo amee reen bi baax na ci dee règle douloureuse reenu boo ko amee di ko baxal ko naan bu neexee boole ci xob yi baax na ci règle douloureuse mooy règle buy buy metti reeni ngol lañ ngoon lañ waaw moom it boo ko amee baxal ko di ko naan mhm. euh, dina saafara règle douloureuse mhm. reenu dori garab gu ñu wax dori dori waaw mhm. moom it boo amee reen bi baax na ci e, dibbu toon moom it boo amee reen bi baax na ci baax na ci waaw ah, euh, clémentine boo ko faral di lekk lu bëri tamit mën na ci baax na ci lu bëri waaw d'accord donc yooyu daal defe naa ni moom ku ci ku ci benn jafe moom du yomb d'accord waaye yëpp bu la jafee dina am bu la ci yomb. waaw ah, si si moom naa bi nga ma jeex la ñuy taam. <laughs> clémentine bi. <laughs> waaw bi la ñuy uh-huh. donc bu amee reen yooyu daal. léegi nag euh, bëggoon nañu xam dosage yi. Hmm. nu ko euh, nit ñi di def. ñu koy utiliser voilà dosage yi quoi. dosage yi. Hmm. donc ngoollañ bi. Hmm. ak farxañ bi. moom mën ngay naan genn wàllu kaas. genn wàllu kaas par par jour. d'accord. par jour non par par deux fois genn wàllu kaas suba ak ngoon. genn wàllu kaas suba ngoon waaw. mais yeneen yi ci des yëpp bu la mmh. neexee mën nga naan kaas. kaas waaw par bis kaas non kaas suba ngoon par benn yoon rek deux fois. Mmh. mais ngoon lañ fekk farxaaj bi moom. Mmh. mën nga jël genn wàll kaas baax na mais yi ci des. waaw su la neexee naan genn wàll kaas comme bu nga xam ne xas nga wax ak ak. Euh, reer yi ñu koy baxal waaw. yi xam xob nga wax. waaw dañ koy infusé ndox mu tàng ci def waaw xobu nduur bi. tamit moom it dafa toxique mën nga jël genn wàllu kaas. genn nga jël kaas exemple. d'accord loolu yaakaar naa leer na ko leer na voilà <laughs> nga xam ni peut-être dañuy am ay règle du wala ñu bañ ko am mhm. yaakaar naa seen bopp gis seen bopp te lu am na solo bari nañu am ne buñ ko bu ñu xas commencé gis dañuy feebar ba règle yi di jeex waaw parce que dañuy tëdd rek duñ am na ñoo xam ne sax pap pap la ñu bëri de am nañu sonal de waaw uh-huh. ba yàlla baax na ñi mu ñi am ñoo ñu ngi te am problème yooyu ñu ñu essayé yi professeur wax yàlla mën nam yàlla def ci tawfiq mhm. kon professeur ñu bàyyi la nga tàggatoo ba vidéo bi ñu incha allah waaw sëñ Pape ñu ngi lay nuyu di la mbokk di nuyu mhm. mbokku internet yëpp di leen baaluwaat àq mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah